asalaamualeykum waaw man la soxna Fatou Gora Fam dëkk Kër Sëñ Louga noor en face jumaay Kër Sëñ Louga waaye di yaay yi ngañ mi nag di di yaay yi ñeeñoom di yaayam di bàjjanam léegi nag mu woo ma ba mu dalee politique ba nëgë dara lu mu def ump ma lu mu nekk bala cee def dara dana ni ma meer nangam laay def nangam laay def bu dikkee waxtaan ci ma xelal ko may ko ci xel mu rafet nag te la ma ko waxit dana ko dégg moom lay def macha allah di ko ñaanal rek lii mu dugg rek yàlla na dugg ak bisimilahi rahmaani eggale ak alhamdulilah rabi alamin te ñu am ci ndam nag yàlla may ñu ci ndam ndax bëkki dem bi mu jógee dakaar dafa ñëw ni ma damaa seetoon monsieur le ministre di ko waxtaan ak man la wax ak moom yëpp mu wax ma ko ma ni ko macha allah loolu kontaan naa ci dañ ciy ànd ak yow nag ba mu jeex tàkk lu mu nekk maa ngi ci fu mu ba mu toogee deful dara sax ma damaa toog ni ko man daal damaa bëgg a toog ndax man mag laa mun ma maire dangay ñëw jàpp sax dangaa yore daara jumaay kër sëñ Louga jee ñun ñi ñoo fi jàng ay mag la ñu nekk ci koñ ba ëpp dañu mat weeri nit tàkkusaan gu ne dañuy ñëw julli tàkkusaan pare dikk toog fa di fa yor suñu yaa seeda bu ñuy jàngal ñu nekk fa ba timis ñu julli timis ku ne dem sa kër mu jàpp lañ ci lool nag lu dikk ku dikk mun ne dem leen seeti daara ji dem leen seeti daara ji macha allah ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax Adja Coro Ndiaye Jong nag man dinaa koy gis nii sax waaye minante wuñu noonu ndax dégg naa lu dégg naa ak mbaaxam ci dëkk bi ku ko gisul li dégg nga ko ku ne dégg na ku ne xam na li muy def ñu ngi koy ñaanal moom it tedd liste bi mu nekk yal na ko yàlla jàppale ba mu am ci ndam ñu dañu fas yéene daal jàppale leen jàppale Moustapha Diop ah mu jëlaat maire bi lu mu ci bëgg 5 ans yi fi nekk lu mu ci bëgg mbaa la ca topp la ca toppaat rek mu def ko ci macha allah. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. maa ngi leen di nuyu man lan Ndeye faatu Ndiaye dëkk Sëñ Louga. yor nattu mbotay fofu foofu yor foofu ay mbotay xalé yu jigéen ñi ñun daal jog nañu pour jappalé suñu yaay Coro Ndiaye jong jappalé tamit ministre mustapha Diop yalla ñu yalla doli japp jappalé ñun ñëpp ba liñu bëgg ñu am ka sama wax daal mom wax yalla yàlla wu ci way daal ñun ñong seen ginnaw di leen jappalé man daal yor na ñaari mbotay suma sañon nga ñëw fa sess ñi ma génné jigéen comme ñi tok ñun ñëpp ñu daal di gën ndax amna mom ay ki ay jigéen Lol, dal mom la bëgg. salaamaaleykum ma ngi leen du nuyu seen tour ak seen ma ngi ñaan wax bi ma wax yalla leen fekk ci jàmm. ja cioro Ndiaye set si nan la and ak suñu doom suñu xarit ndax buñ ko juré tamit dafa nek suñu xarit motax lu mu dugg nu dugg ci lu mu duggul duñ ci dugg man xawma kañ la gëjë a politique waye bu joggé rek bu natuma tok waaw ndax mom moko jar. A, ah, nun nag ay mag lan xamna amna yu nu mënul waye amna yu nu man amna yu nu man bu baax nak ndax mag mom yag nak yalla te yalla mag la bëgg lool la ci daan sanni rek di ñaan yalla na yalla def jam man nak ma nga dëkk en séeru ndax dañu ñëwon tay seet si yaay muy Coro Jong comme liñ wax rek APR presque ben bant la quoi ki nekk sa kaw ba si suuf ñun ñëpp benn loolu tey moo waraloon suñu dikk bi tey ñu fas yéene jàppale ministre maire monsieur Moustapha Diop li nga xam si moom lañ dem duñ wax nag liggéey bi ndax lim def daf ne fàng ñëpp gis nañ ko jarul si duutaat baaraam li ñuy ñaan kay mu gën koo yokk te yokk googu bala mu kaa mën ñu falaat ko au soir du 23 janvier te ñun moom la ñuy ñaan incha allah di dinañ ko yaatal ba mu yaatu nag ndax mouvement bi du Louga gépp daal la te am na yeneen yoo xam sax sori na quoi mais li ñuy ñaan mooy ñëpp ñoo xam si ñu ngi biir Louga kenn ku nekk na jël jàpp si ba Moustapha Diop faluwaat moom la ñuy ñaan ñun mouvement MJDR Kër Sañ Louga je suis le secrétaire général maa ngi leen di remercier yéen ñëpp jërëjëf. mouvement MJDR ñoo ñëwoon doon doxantu doon la ziare si doon def nemmeeku yàlla dafa dogaloon dafa am fu féete woon bokkoon ci benn coalition bu ñuy wax jàmmi Sénégal. yàlla dogal ñu jóge fa ñëw joindre ministre maire Moustapha Diop tey jii mu nekkoon bis bi njëkk ñu génnoon doon def doxantu doxantu nemmeeku ñu doon seet si sunu yaay sunu bàjjan sunu maam Adja Coro Ndiaye Jong Adja Coro Ndiaye Jong nag seet si ko dañ ciy sawar ndax bi ko yàlla booleeg président Macky Sall. boole koog ministre maire Moustapha Diop léegi dara ñaawul mu nekkit ku neex a jëflanteel tey jii mouvement MJDL ñoo ñëwoon tey doon la ziare si di feddali diggante bi nga xam ni suñ borom boole nañ ko ñu ñëw di fasante jëlaat fi yeneen engagement yu gën a yu gën a dëgër pour ñu gën a jàppante gën a waxtaan gën a mën a déggoo te comme dañuy jub local ñuy waajal bëgg laxasoo nee na ñu bokk kii nu mu tudd ñu bokki euh, kii ñoo ñu bokk teen ñooy laxasooy gooj loola waraloon nemmeeku bi ñu ñëwoon pour ziare si man ak bi ma àndal yëpp pour doon si loo doon tey loolu moo doon suñuy tànk tey. soxna Adja Coro Jong moom mi nga xam yàlla def na moom lañ def tête de ci list Benno Bokk Yaakaar muy xaritu Macky Sall di xaritu ministre maire Moustapha Diop. ñu am golol lool dara ñaawul macha allah muy ku neex andal ndax sunu kanam yi min na ko miinante nan ku neex andal ngi ni ku neex jëflanteel moo waraloon tey sunu jotaay bii tey. asalaamaaleykum mbooloo mi waa mouvement ds maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di doore nuyoo bi nag ki Momar Momar li mu wax dëgg la sama doom la sama lépp la. parce que lu bokk ci président Cheikh Mbacke fay rek bokk na ci man ndax président Cheikh Mbacke 2002 yaakaar naa lañ ànd chambre de commerce ba tey te dara ñaawul suñ diggante kon lu laal moom Cheikh Mbacke rek sama njaboot la kon Momar maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ak mbooloo MJPL bi nga bokk yépp di rafet lu nag ñëw bi ngeen fi ñëw ñëw bi rafetlu naa ko ci ñaari fànn bu njëkk bi mooy choix bi ngeen porté ci ministre maire Moustapha adhéré ci projet de société fas yéene ànd ak moom liggéey ci élection locale yi ñu jëm loolu lu may rafetlu la te it loo xam ne li Louga gi yëpp nag war nañ jël exemple ci yéen parce que ki nga xam ne ki def na benn mandat liggéey fi lim fi liggéey yaakaar naa bu ngeen ko joxee deuxième mandat Louga dina gën a taaru gën a dina am beneen xar kanam kon heureusement ba vous comprise si bien ba tax ngeen jóge fa ngeen nekkoon muy mu coalition jàmm Sénégal bu Mamour Diallo ñëw ci ministre maire Moustapha Diop loolu maa ngi ci koy rafetlu di nag saluer sa courage parce que loolu courage la am foo nekk xam ne fii du dem nga am courage bu toll ne ànd ak sa mbooloo yëpp génn ne maa ngi dem feneen foo xam ne fi fa laa am yaakaar loolu bokk na ci courage kon ñu ngi la ciy remercier di la ci féliciter ñëw bi ngeen ñëw fii nag ñëw bu ma neex la parce que en tant que tête de liste proportionnelle ministre maire Moustapha Diop jiital ma te jiital bi vraiment du kenn ku ko ci guidé il a fait de son propre gré parce que xaj na gis na ci man ay valeurs yoo xam ne yi jaral na ko mu jiital ma ndax li ma tax a dugg APR moo jàpp sama loxo yóbbu ma ci ba ci président Macky Sall kon kooku am na fu ma teg kon ñëw bi ngeen ñëw fii yaakaar naa du hasard li ngeen def rek ngeen li ngeen war a def rek ngeen def dem seeti ministre mu dalal leen ngeen jóge fa ñëw ne da ngeen may seet si en tant que tête de liste en tant que yaay en tant que lépp kooku dama ciy kontaan di leen ci remercier nag remerciement yoo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem di leen xamal ne ndam nag fii ñu jëm nii bu soobee yàlla danañ leen jàppale danañ leen boot danañ leen téye danañ leen tette teyit nag lépp loo xam ne lii mën nañ ko ci jàppale leen muy jigéen ñi ngeen àndal dinañ ci jàpp ba fa ñu jóge de duñ fa am dara loo xam ne lii danañ ko regretter te yaakaar naa loolu mooy suñu wàll te dinañ ci dox danañ ci wax ba li ngeen yaakaar fi ngeen ñëw ni du ngeen ci am benn gàcce du ngeen ci am benn kersa maa ngi leen di gën a feddali suñu kóllëre rek di leen gën a tàllal loxo di leen xamal ne it affaire bi du yomb yoon wi sori na soriwul bu ñëpp jàppee rek kenn ku ne def li la war rek yaakaar naa dana yomb te ni ma leen gisee nii ak seen taxawaay ak nii ngeen ñëwee nii wane na engagement ngeen ci dugge engagement boobu nag bu ko kenn ku ne amee kenn ku ne taxawee ko wet bi ba nga xam ne bii foofu nga nekke fa ñu jëmb bu soobee yàlla danañ fa am ndam loolu rek la ñuy ñaan le soir du vingt 23 janvier ñu ne wiiw ci maire bi ministre maire inauguré maire bii nga xam ne xam naa Sénégal di du ma ne fépp euh, ah voyagé ma lu bëri de ci à l'intérieur du pays mais xam naa maire yi ko am ville yi ko am ci Sénégal bariwul kon nag suñu yàlla jàppale ba ñu am ministre boo xam ne bii am na vision bëgg na Louga bëgg naa defar Louga kon ñun dañ ko wara jappalé jàppale rek laa leen di gëna ñaaxaat ah di leen gëna a félicité di leen gëna eh, dalal jam, di leen wax ne daal bu soobee yàlla danañ ànd la main dans la main ba ñu am li nga xam ne lii lañ bëgg muy gagné maire Louga bi ah loolu rek laa ci doon yokk di leen loolu rek laa ci doon yokk di leen gën a remercier encore une fois di leen wax ne daal kër gi seen kër la soobee yàlla dinañ ci jàpp luñ ci mën a Merci beaucoup.